saraax la nuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat bañ doon waaj a taxawal diggante rëg-rëg ak Sa Thiès mañ fi contacté woon ngir mu jàkkaarloog rëg-rëg bëreeg moom dafa laajoon kaseb 60 millions 40 millions ko fay moom Sa mu ne du ca dal ku bëgg mu bëre la bile combat faaw nga teg fi 60 millions tojul dërëm 59 ku ko ko joxoon sax du la bëreel maanaam 60 yi bu tojee ab dërëm dootul jël avance ba faaw ñu fay ko lu mat sëkk lu ko jaral a jàkkaarloog rëg-rëg flambé guy ba ñu jógee ca Sa ca guy gi la dal guy gi moom it noppi na pare na ngir bëreeg Reug Reug waaye 60 millions yi du toj dërëm foofee nag Vox Arena faaw mu def différence ngir mën a taxawal benn ci combat yi soit mu taxawal diggante Reug Reug ak guy gi wala Reug Reug ak Sa ba ñu laajee nas agent guy gi la mu xam mooy promoteur bi woo ma contacté na ma jokkoo nañu waaye xam naa ne boobu dafa wax ak Sa d'accord nu mu ne naa n'importe quel kase saa yu ñu fayee lu jaadu danañ jël avance ba dem bëre bu dee Paala Jóob moom la mu xamle mooy Sa Thiès sa guy gi ñoo yem ñaari mbër yooyu benn la kiif-kiif ñoom ñépp dañoo ragal rëg-rëg dañ koy éviter léegi nag problème làmb ci moom lenn képp la mbër yi dañoo bëgg di jot ay millions yu bari te duñu bëreeg seeni morom li ci am ba des mooy rëg-rëg mu ngi liggéey mu ngi xaar mboolem ku ko ci làmb booleel da xam ne am nga combat lu fi Aziz Ndiaye deful wala lu fi Luc Nicolaï deful ñëwuñu ngir benn saison waaye dañoo ñëw ngir marqué suñuy empreinte ñaanuñu yàllaa yem ci combat Franc Tyson moo tax ñuy démarrer yeneen combat yi li am ba des mooy diggante Reug Reug ak Sa Thiès ñu nga ca te sori nañ ca keneen ka sori ci ay combat mooy Pape ak waa DKI production yi promoteur officialisé nañ combat mobile 2 ak Bour Sine boobee combat nag suñu lamb combat de relance la ko tuddee li waral loolu mooy mobile 2 2018 a gis CTFP ba tournoi Fall production ba Ramdan Soq ak doomu daangu dañoo yéeg ci kawam bu dee Buur Sine moom le février la mujjee daanu ci arène nationale Eumeu Sène Junior bu Mor Fadam moo ko mujjee daan loolee moo waral journal ba xam le ne Mobile 2 ak Buur Sine combat de relance la ñaari mbëri ku ci daan génn saako yi promoteur yi taxawal bile combat Pape ñu gën ko caa ràññee la mu xam le mooy nekkoree lit ñu ngi koy wutal adversaire yombul nag lu jafe la waaye buñ a ngi nii bëreewut moom Bismi Ndoy ñu ngi ko gëj a gis ci combat ba ca paléum nisport bu France ci atum 2013 boobee combat digganteem ak Elton la woon defet bu metti la fa jógee ndax Elton da koo kaawo boobaak léegi bis mi kenn gisu ko kenn déggu ko bu ñu dellu see ci palmarès am dañ fay fekk 5 victoire mu daan Elton Pape Fall Baba Mal teg ci Boy Ndiaye ak Matar Gueye 4 defet yi mu am laay béy moo ko daan Gambien 4-2 Elton ñëw jël revanche am daan ko mu am ñaari match nul digganteem ak Naar Touré ak Pakala amaat Naar Touré am ci moom benn sans xam ne bile mbër daal depuis 2013 dafa mel ni promoteur yi ko kenn déggatu ko keneen ka ñuy laaj ndax bàyyi làmbam déet mooy Boy Naar moom juróom-ñetti at a ngi nii kenn gisu ko ci làmb ji jamono yi mu nekkee Fass moom Boy bokkoon ci mbëri promoteur yi gënoon jox bopp ci atum 2005 woon na fi 6 combats 6 victoire daanoon fi Laman Sarr daam ñaa Seex Malaajo teg ci Jean Pierre Suguer ak Seex Kan daan ku ci mel ni Cobra xew bokk ci plan promoteur yépp ba mu jógee ci defetam ci Auguste bu Mbuur la daan Bazoka Simel Fay ak kàdd gi ci la jógee am ñetti defet yu tegaloo mooy ca Boy Dakar ak performance yi ak fu mu toll ci làmb journal ba xëy na fësal jëmmam ak palmarèsam dix combat la def dix victoire gonek Duudu Bakasaar gi ci ay ndam la toog déggagul mu ñal moo fi daan Orka Aatu ak Anaconda daan daan teg Modou Yaasin ak Caatu teg ci Junior T ak Giro mbër mi mu mujjee daan mooy tigoo xaritu yaayam boobee ba léegi ci ay victoire la toog déggagul mu ñal jërë ngeen jëf mbokk yi li li gën a fës ci